De Merci, Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur le ministre chargé des institutions. Euh, tey li ma bëgg a wax rek dama bëgg a rafetlu ci règlement intérieur bi nga xam ne waxtaan moo ko lal Sénégal à chaque fois su waxtaan amee rek ñu am ndam. donc loolu na continuer te di ñaanal ñi fi nekk ñun ñu nekkoo opposition yàlla ngeen réussir ngeen réussir mission bi ngeen am ba sénégalais yaakaar bi ñu am ñu gis ko ci yéen suñu ñëwee deux mille vingt neuf def li gën li ngeen def loolu mooy démocratie te li fi dee ci nit yàlla bu mu deeti ci alternance li ñu ñaan lépp lu ñuy waxtaanee Sénégal ñu waxtaan ko consensus te fii mooy lu jaloo assemblée nationale nag dégg naa président de la république wax dégg naa premier ministre wax ne jury d'honneur assemblée dara mën a ko remplacer ci réew bu am république parce que fii la ñu déclaré guerre ci réew yàlla tere fii la ñuy daanee gouvernement fii nag moom rek am centre national ci institution yi am ci réew mi yépp donc loolu yaakaaroon na politique rek la beneen bi am nañu yaakaar bu baax ci ministre de la justice bii parce que pur produit sénégalais la ba pare su ma fàttalikoo ci Gabriel Darboussier ba léegi gouvernement Mamadou Dia ñu ngi doo ko am magistrat peut mu juum de parquet ñu war ko jox justice sénégalais am nañ ci yaakaar bu wax bu baax parce que kenn déggula nga politique kenn déggula nga farfenn donc sénégalais yi am nañu droit am nañu espoir ci sa éducation ak qualité ñi ko yor monsieur le président li ma bëggoon wax d'accord naa ci suma collègue bi li mu wax léegi mu jëm ci affaire u Nestlé man de à cent pour cent maa koy jàppale ci commission d' enquête bi mais dafa am lu ma jaaxal dañu jël produit pur bu def des dizaines d' années à la Nestlé ñu def ko suñ ministre du commerce ministre de l' industrie man tiital na ma trop donc su nekkee nga dem cabinet ay cadre Nestlé nekk foofu donc waxu Nestlé boobu intéressé na ma trop donc loolu maa ngi ko ci soutenir maa ngi ko ci jàppale incha allah monsieur le ministre yi fi nekk maa ngi leen di yóbbante le privé national tiit nañu jaaxle nañu. ku amuloon ATD ATD ngénte la ci yow te Sénégal waruñu nekk dix-huit million de sénégalais soixante mille contribuables rek di fay impôt nañu yokk assiette fiscale wàññi impôt yi société yu dund créer emploi su ngeen ko deful société dinañ tëj dinañ dem monsieur le ministre de la maa ngi lay jox yóbbante waa Nioro Nioro am na tribunal mais amuñ lu ko dañ leen ko abal ñu ngi lay ñaan ci budget bi di ñëw nga fexe ba Nioro Durib am seen tribunal départemental beneen bi fi may jeexale di wax ne Sénégal lii rekk fi mën a am ñu waxtaan ju juboo ku yaakaar ne saaga wax lu bon te loolu monsieur le ministre ñu ngi la koy ñaan ak clémence su nekkee ñi saaga ñëpp président Ousmane Sonko wala le le président Diomaye dañ leen di tëj bu ñu yem ci ñooñ ñi doon saaga quatre ans di menacer nit ñi mais ñooñu war nañ leen jëli dugal leen ci kaso gi wala ñu bàyyi ñëpp. donc loolu mooy état de droit loolu lañ lay ñaan monsieur le ministre de la justice clémence mën a am sénégalais yi dal xam ne pouvoir carte moo koy joxe nit moo koy joxe du doole du saaga du xasante loolu laa amoon di leen wax di leen ñaanal yàlla leen yàlla may réussite incha allah merci beaucoup. merci euh, une correction euh, Koura vous attendez après Cheikh Abdou vous la parole Cheikh Abdou vous la parole. Cheikh Abdou, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. xam nga rectification dafa am solo mais wax dëgg tamit dafa am solo parce que man damaa yoru nopp di dégg maa toppoon si gi ci ci momo kii nga xamante ne mooy Lamine Ba monsieur le ministre ginnaaw bu ñu la nuyu encore nuyu sa naatungo mi ngi nekk maa ngi nuyu sama collègue député yi <laughs> maa ngi sant Sëñ Tuubaa nag ku ma gis xam ni maa ngi sant Sëñ Tuubaa